من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يزر ولا تعجر علينا démb ñu ngi taxawoon ci inama sabilu dafa mel ni dafa am lu mu dàqoon am lu mu ciy jukki bëgg kaa saxal démb noon ne laysa ala duafai manoon la na nga jéggi ñeenti baat yooyu ci kanam dem ca xarajun jële wala alal marda nga dellu ci xarasun wala ala alladina la yujidduuna ma yunfiquuna nga dellu ci xarajun exan boo xam ne daal dina jural borom tiyaaba te xeexum ñii daal laa jukki féetale leen ko mooy ku màgget ba mënatul wala ku màggetul te feebar wala ku màggetul feebarul te amul loo xam ne mën na koo dépenser ci lu mu dimmandikoo ci xeex muy lu ñu war ak lu ñu yor ñooñu ñett ñoo bokk xarajun jooju kenn amu ci bàkkaar waaye nag ñoom ñett seen ñàkk bàkkaar te ñàkk xeexi am tiyaaba dañ ko sart mooy isaa nasoo lillahi ndéem des gi ñu des ci kër gi des nañ fi ànd ak jàpp seen gémmiñ des nañ fi ànd ak ñàkk fexeel yéefar yéeg ñàkk leen a digal des fi di laa biire diine ji ak yonent bi kon ñooñu seen ñàkk gee dem xañul leen seen yool bu dëgg kon laa li gën a gàtt maa alal muxsinina min sabilin képp koo xam ne kii yàlla dogal na nga bokk ci borom ngànt yooyu te sawtoo gën rafet amatuñu ci yow yoonu yeddeel yoonu yeddeel ak yoonu jàppale bàkkaar ngir wallahu yàlla xafuurun fompaakoon bàkkaar la rahimun dikku yaa yërmande ba tey ñii ci ñooñu la ñu bokk dañu wute nag ñee dañu néewoon doole ñee feebar ñee amuñu lu ñu war ñooñu ñoo bokkoon ñàkk am bàkkaar bu fekkee laa bi seen ak toog rafetal nañ ko rafetal nañ ko rafetal goo xam ne ñu ngi ci rax ak laa biire gu jëm ci diina ji ak ci yonent bi ci leen ñeenteel nag bu fekkee kenn nit la ñeente lañu bu fekkee fukk lañu ñoo ñeenteel ñett ñooñu ñooñu itam amuñu bàkkaar mooy ñan wala ala alladina du caageen ña nga xam ne ida ma ataw ka ndem dikkal nañu la li tahmilahum ngir nga jox leen waruwaay jox leen lu ñu war pour xeexi ñëw na nu ndey dogu nanu feebaranu naam màggatunu naam waaye nag lu nu war amunu ko fekk yowit nga nekk jekk bi xulta nga tontu leen ne man de laa ajidu amuma maa amilukum lu ma leen mën a waral ali ci kawam ngeen xeexi nga xam ne ba nga leen waxee baat boobu ñu wóor la ne du ñu mën a dem ngir ñàkk lu ñu war amula ko amuñu ko te walaw dañu wëlbati kuy ñibbi te ba ñuy dem wa ahyunuhum seen bët yi tafiddu mu nga taa mina dame ngir rongañu xasanaan ngir naqarlu ñàkk xeexi ba ñuy ñibbi ci yët ne amula loo leen jox te amuñu lu ñu war ba mu wóor ne du ñu dem rongañ yaa nga taa ngir naqaru ñàkk gédem nee na ñu juróom benn gaay la ñu woon yu bokk ci lansaar am na ñu ne déedéet bannu moqin la ñu bokkoon ñooñu amu ci kenn koo xam ne yàlla tegati na la dara ci sa ñàkk dem ñu ne kon nag xanaa yeddatuñu kenn mu ne ah kañ des nañu ñu tuddul maa ngi wax ku tëli maa ngi wax ku feebar maa ngi wax ku amul lu mu jënde lu mu wax ma toftal ci nag ci ñëw décider taxaw ci sa kanam ne la jox ma lu ma war nga ne aw ma ko muy jooy ñooñu laa wax ñooñu laa ni amuñu yoonu yeddeel ñu ne yoonu yeddeel kon ku mu dal mu ne inama sabilu naka yoonu yeddeel ci bañ a xeexi alal lazina mu nga tegu ci loosi gaa yi nga xam ne yastahzinuunaka ñëw nañu di la laaj permis bañ a xeex te ba ñuy koy laaj wahum ñoom axniyaau ñu di ñoo xam ne ñu wér lañu wahum booba jamono axniyaau ñu di ñu am lu ñu war wowum booba jamono ax ni yaaw ñu di ay jeunam yoo xam ne màggetuñu loolu nag lu tax ñu am lu ñu war feebaruñu màgguñu ñëw dil ñaa permis bañ a xeexi mu ne rëdoo dañu kontaan dañu tànn an yakoonoo ñu nekk bokk maa xawaali fi ci ñu xeexiwul dañu tànn daal dem ñaari kalan xew bi xeex ak bi toog ñoom dañu tànnu bokk ci ñu dul xeex la ko jur nag mooy tabaa dafa kaste laaw yàlla ala qulubihim ci seeni xol laa yaalamuuna duñu mën a xam mukk yoolub déggal yàlla ak mbugalam bañ koo déggal kii nag takraar nañ ko fii ndax jumla ju mel noonu jiitu woon na fële waaye foofa dañ ko defoon li taakudi fii dañ ko def li taaciidi fële ñu nga jeexale wax ba ci firi ko la yaalamuuna fii moom la jeexe laa yaalamuuna fële mu nga jeexe ci laa yafqawuna laa yafqawuna ak laa yaalamuuna muy wane ne fiqihu ak almu benn rek la daf ko def rek ngir feeñal ay luq ay luqa wane ne elmu ak fiqhu benn la ñu ngoogu toog naafiq yi àndu ñoog yow xeexi te buuki xeex bu dangereux la woon óor na ma nag yaxtadiruuna danañu dellu si nag boo dellu si jàmm yaxtadiruuna danañu sakku si layu ngant ilaykum jëme ci yéen li tax demunu ñàkk jekkalaat yu mel noonu kañ lañ koy wax isaara jaatum jamono bu ngeen ñibbeeg jàmm ilayhim jëm ci ñoom su ngeen delloo dana ñëw di lay lay yoo xam ne dañuy feeñal ngant li leen tere dem waaye xul na leen yaa ngi ci xeexukaay bi demagoo maa ngi la koy xabaar soo àggee ba ñu ñëw ne leen laa taxtadiru soxlawul ngeen di lay lay ngant ndax li tax soxlawu ko xel bi mooy lan nu'minu du ñu gëm mukk la kum ñe leen li ngeen wax ñaareelu yàlla bi mooy xad na ba naa xamal nanu laaw yàlla min axbaarikum seen affaire soxlawu la lay yéen bi ngeen laata ñëw jibril jiitu nu fekk ñu fa nuy xeexe wax nu li tax xeex si wu leen te yéen a ngi préparé lay caaxaan kon soxlawu ko du ñu ko gëm ñaari en la tax loolu nu'minu lakum ngir xad na ba naa laaw min axbaarikum yàlla ne wa sayara allahu amalakum wa rasuluhu summa turadduuna ila alimi alxaybi wa saadati fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun bu leen lay lu yàgg-yàgg wa sayara xel seet na leen a won wonug jëf wonug jëf lay doon du won wonug jëmm ku leen di won laawu yàlla lu mu leen di won amalakum seen payug jëf càncaay gii ngeen def bu bés pénca yàlla dina leen ko won te mooy dem safar wa rasuluhu Mustafa it dina leen ko won fii ci àddina te mooy jekkoo leen duma leen baa ñu teg leen galak su ko defee nag su ngeen dee ñu dekki leen suma poro duuna ñu jiital leen yéen ñépp ilaa aalimil xaybi ba ngeen teewi ci ki nga xam ni moo xam ña xeexi woon wa saadati ak ñi teew ki nga xam ne moo xam li fàddu ak li teew ci kanamam ngeen jëm su ko defee ne biukum mu xamal leen bi maa kuntum ci càncaay gi ngeen nekkoon taamalu ne di liggéey ko xamal gi mooy mu fay leen ko boobu lan lay dem leen rek bu bés pencaa ngeen xam ne borom bi seen dara ump ko sayalifuuna billahi lakum idan qalabtum sayalifuuna xel seet na ñoo giñ billahi ci màggug yàlla danañu giñal làkkum ñeen leen kañ idan qalabtum jamono bu ngeen bulbitikoog jàmm ilayhim jëm ci ñoom min tabuk dinañu giñ dinañu giñ ci wane ngant li leen tëree dem xam nga lu tax ñuy giñ lu tuuri doo ngir nga dummooyu anhum ci ñoom dummooyu bu dul juru mer dummooyu buy dàq yeddeel te du la jural mer aha kañ loolu la ñu bëgg te nekkuñu ci dëgg ma ne faxri doo na ngeen dummooyu anhum ci ñoom dummooyu gu ànd ak njëppite nag bu mu doon ak ànd ak kontaante du mooyu leen du mooyu gu ànd ak njëppite ak bañ a gëm seeni wax innahum gaa yooyu def càncaay googu ba noppi ñëw di lay rijisun ay salte lañu ay sobe lañu nit ñu bon baatin lañu wa mahwaahum seen tàpp waay jaanama jaanama lay doon jasaan ngir fay leen ko bi maa kaanu ca la ñu nekkoon yëkk ci bona di ko fàddu di ko fàggu ci àddina yaalufoona danañu giñal làkkum ñeel leen bi ngeen xëy-xëy ba ñëw ñoom naafiq yi demul woon dinañu ñëw wóor la ku ne di giñ man dey sama gileema réeroon man dey sama teg laa able woon di giñ rek giñ yépp bañ nga mer ak bëgg nga noppi ci bañ leen a yedd moom lay takkaraaru noonu rek dinañu giñ bu wa dellu see li tardaw ngir nga kontaan anhum ci ñoom waaye soo kontaanee ci ñoom fa in tardaw ndem kontaan nga anhum ci ñoom du am njëriñ lu tax du am njëriñ mooy fa inna laaha kii fay tey duma moom laa yardaa du kontaan mukk anil xawmi ci nit ñoo xam ne faasiqiina way ñàkk dégg ndigal lañu alahraabu sàmm yi ni ko kow ëzëdu ñooy gën a tar kufran ci kéefar wa ëzëdu ñooy gën a tar fusuur nifaaqan ci naafiq ne nañu ñoom ay nit lañu ñoo xam ne seen xol day wow koŋ ngir ñàkk gi ñu ñàkk dégg dëkke capital nitu kaw ñaare mooy gën a dëgër ci dégg waxi yàlla ci nitu capital ngir àlla ga mu nekk ak néew gu muy néew ak jaxasoog ñu am intelligent looloo tax yàlla ne allahraabu sàmm yi ëwlul bawat yi ñi dëkke kaw ëzzadu ñooy gën a tar toujours kufran ci kéefër wa ëzzadu ñooy gën a tarit nifaaqan ci nafiq wa ajdaru ñoo gën a yeyoo ala bi an laa yaalamu ci ñàkk a xam ududama ansala limité la nga xam ne wàcc na ko laaw yàlla àla rasuli ci Moustapha min al ahkaami wa saraixi ñoo gën a yeyoo réere yëf yi ndax demuñu ci nit ñi wala borom bi alimun xam ne mbindeef yi akimun mooy dogal seen mooy atte seen jëfit dëgg la du ñu jeex waa bandi yi du ñu jeex ay façon yi façon lañu wa min al ahraabi am na ci sàmm yi ñuy joxe asaka waaye joxe asaka it yët yët taxisu danañu jàppe danañu jàppe man koo xam ne yët taxisu dana jàppe maa yën fiqu la muy joxe ci asaka maghraman mu di far force munuma ko bañ a joxe waaye su doon suma ngëm du ma ko joxe ndax kii perte rek la ci man moom la ñuy jàppe li ñuy joxe nañ ko joxe te muñ nee na nag loolu banu asdin la ak xatfaan ñoo daan wax nag bu laajkat si asaka yi ñëwee nañ leen jox te it muñ ndax yëf yi du continuer mu dina ami bés affaire bi soppeeku wa min anaxraa bi am na ci waa am na ci sàmm yi man koo xam ne ak ñoo xam ne yettarisu dinañu jàppe maa yunfiqu li ñu dépensé tudde ko yoonu yàlla dañ koy jàppe maxraman mu di far force dugg du dëgg maxraman mu di perte wa yatarabasu su ko defee ñu muñandiku bikum ci yéen dawaayira soppeeku jamono naaw nañ toog rek bés buñ ko fi dumaa ba folli ko la ñu jotoon a joxe ñun dinañ ci jox alayhim yal na dal ci kaw ñooñu di xaar xew-xew bu bon dal la ñoom rek ci seen kaw lay dal daairatu sow i wëlbatug jamono gu ñaaw ci seen côté wallaahu yàlla samiun dégg na waxi jaam yi alimun xam ne seen jëf ñooñu façoni arab lañu am na beneen nag wa min al ahraabi terewul nag am na nag ci sàmm yi am na ci waa baan yi man kook xam ne ak ñoo xam ne yuminu dëggal nañu ci seen xol billaay ci yàlla wal yow mi ñu dëggalaale bés bal ak xare ni juwéy na ak musaynatu ñoom uute na ñoo xat faan bale ak asdin ay xeeti xeet lañu ñoom day waye tekki su dinañu jàppe maa yeen fiq lu ñu dépensé mu di xurabaatin ak jaamu gu leen jural jegeñ borom bi indalaay fas yàlla danañu jàppe lu ñu joxe wa salawaatin mu jural leen ak ñaan wa salawaatin ak wa salawaatin rasuli ak sababi man caa amee ñaanu Moustapha yàlla ne li ñu foog a am allah waawee ci dëgg inaa loolu ñu joxe xurbatun ak jaamu la gu ñu nangu loo ñeel leen su yudxiluhum xel seet na ne dugal laaw yàlla fi rahmati ci yërmandeem inna laaha borom bi xafoorun fam paakoon bàkkaar la ci ñi koy topp rahimun ko yéexa duma la e fii ngay xamee ne rasulullahi mooy waasitatul usta us usma digganteem ak jaam yi ndax nee naa gaa yi njëkk yële ñu ngi fere naan waaye dañu tudde fere bi sañu la bañ ñu ngi joxe asaka tudde asaka bi sañu la bañ ndax gëmuñu yàlla gëmuñu peeb gaa yu mujj yi nag ñu ngi joxe asaka naam te ñooñu ci seen bopp ne dina leen jural lu leen jegeñal ngërëmal seen borom dina leen juralit sababi ñaani rasulillahi sunu borom tabaraka wa taala foofu lay nga xamee ne feeñal na martaba Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ndax wax nañu ne waqad quria bihima fi sabi wa maana kawnaha qurbatun annaha taqrubu al-abdi liridaallahi alayhi mën naa propagandal jaam lu jur ngërëmal boromam walaysa maanaawu nag an allaha fi makanin wa tilka nafaqati taqarrubuhu min salika almakan fa innahu mustahilun taala du caagee nag pour yàlla dafa nekk ca Tambacounda sarax si di loo xam ne mën naa pousser jaam bi ba Bamako du loolu ndax yàlla nekkul ci place sarax si daal day jege ñel nit yàlla du jege ñag tuxu ci place jëm ci place jege ñag mun a am yërmandeem ak ngërëmam la te itam wa salawaatu rusuli ñaani yonent ñaani nabi li annahu waasitatul usma nabi moo di intermédiaire bu gën a mag fi kulli niamatin ci bépp xiwal bu am fa tujibu mulaisatuhu fi kulli amalin lillahi kon dañ ko war a bàyyi xel ci jëpp jëf jooju dafa lillaay li anna laa taabaduna bi tawassuli yàlla nu sant ne nanu am nanu am ak ak ak nooy bu ñuy def ci côté rasulillahi ndax ñu mën a àggi nee na in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhbibkumullahu fa man saxaama képp ku wax ne annahu naka moom yuzillu man naa joti ila ridallahi ci ngërëmal yàlla bi dooni tixaasihi sallallahu alayhi wa sallam waasitatun man ngaa tëb rek am ngërëmal yàlla te du nabi nga doxale sa digganteeg yàlla def ko muy sa wasila bayna wa bayna allahi taala nee na ku foog loolu dal la sahyahu wa xaaba raayahu sa jëf neen na sa sa pexe yàqu na ndax am na benn waay bu mën a woy bokk ci gaa yi baax yi ne na ko wa anta baabul ay yimrin ataaw min xayrika laa yutqalu yaay bunt yàlla bi yàlla bi mu tataa boppam porte bi mu bàyyi ni war cee jaar tàbbi ci moom moo di yow fa huwa baabulay laxsam wa sirruhu laqam wa wusulu ilayhi wusulu ila allahi taala li anna adaratayni waidatun nee na mooy buntu yàlla bu màgg bi mooy mbóotam mu foor mi joti ci nabi mooy joti ci yàlla ndax adara yi benn la fa man faraqa lam yusiq lil maarifati tuma képp ku leen jéem a séparé adratu ilahi ak adratu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu ñuy wax xam-xam daal mosula ci dara maarifa daal amula ci dara والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون ويجيتني تنجم جيتو تنغو جيار الأولون يدي وينجل بينو كتوب موخا من المهاجرين kalan bu bokk ci taxula wal ansaar ak ñi dalalaate wala si nag gaa yi nga xam ne tabaahum topp nañ leen bi ihsaanin ci jëf ju rafet ñoom ñaa ne radiyallahu ngërëmal yàlla anhum nekk na ci ñoom saabiquuna al awaluuna min al muhajirina wal ansaar yàlla nañ ci yàlla boole wala si na tabaahum illa yowm al qiyamati ñoo bi ihsaan itam ñi nga xam ne ñoo leen roy ci jëf ju rafet ñoom laa boole ne radiyallahu anhum mubtada xabar jàngo jumla ji mooy jumla xabar ju jëkk ji xabar ju mujj jëkk mubtada mu mujj mi ñooy jumlay mubtadam ñaareel mali am nañu ngërëmal yàlla maanaam yàlla kontaan na ci ñoom yàlla nag bu kontaanee ci yow dina la fayal dina la fay di la fay ba yowet nga kontaan wara doo xel seet na ñoo kontaan it am hu ci peeg yàlla wa ahada dencal na lahum ñeleen janaatin sardin yoo xam ne tajri dana daw taxtahaa ca suufi garab ya wala suufi taax ya lan xaaru ay rigool xaalidiina mbir ñu ñu di woy muñandiku bël fiha ca biir àjjana abadan xaalidina bul firi ne ñu di woy bël ndax balaa ñoo bël dugg duggaguñu ñu di woy nattale bël fiha ca biir àjjana bu ñu duggee abadan saalika tàbbi ci kër goo xam ne du màbb saalika dund bu borom dul deeti alfawsu mooy taxe al azim du noonu yéegu la ko nag tey ma wax la ko wa min awlakum am na ci seen côté yéen waa Médine ci seen côté sëf ci taati dëkk bi min al ahraab ci sàmm yi am na ci ñoo xam ne munaafiquuna ay naafiq lañ am nañ ci de aslam asjan xafaar ñu ngi ci taati Médina waaye ay naafiq lañu wa min al ahli Médina ci biir capital bi it am na naafiq am nay naafiq ñoom itam de marado nuur nañu nem ala nifaaqi ci naafiq dëgg la laa taalamahum xamula leen ne du yow doo dof ku ñaw nga ku muus la waaye ñoom seenu ñaw ci naafiq diigal nañ ko ba mënu la koo xam mënu la koo xam ne ngay ñaw yëpp ndaanu nun yàlla mi dara umpul nag naalamahum noo leen xam sunu hazibuhum dinañ leen buggal maratay di ñaari yoon gàcce leen ci àddina ak yóbbu leen safara wax nañu ne wax boobule ñu wax ne sallallahu alayhi wa sallam taxaw na di xutb ba fi ajjuma daal di wax ne diw naafiq nga diw naafiq nga ku ma tudd sa tur na nga jóg naafiq nga góor yépp a ngi toog mu commencé di ko lim diw jugal naafiq nga diw jugal naafiq nga loolu moo di mbugalam àddina bi mooy gàcceel leen ci seen kanami nawle mbugalam àllaaxira mi amul ñaari werante moo di bu ñu tuubul ñu yóbbu leen jaanama yàlla ñu ci yàlla musul su ma yurut duuna topp ñu delloo leen buñ leen dekkalee ba noppi ilaa azabin jëm ci mbugal azimin mu di muñu màggal wa aqaruuna wa xawmun aqaruuna mubtada la am na ñeneen ñoo xam ne xtarafoo connaître nañu bi sunu biim ci seen fot ndax ñi demul woon xeexi Tabuuk ñetti kalan la ñu woon ñii ba nabi ñëwee dañuy dem ne ko daal ñun xeexewuñu woon te it dëgg dëgg ñàkkuñu woon jot feebaruñu woon baalul na bi baalul leen ñii dem fab seen bopp yeewa ko ca jàkka ja ne feeg baaluñu duñ ñu ba duñ fi jóg ñii téye seen bopp yëgal seen bopp am tiit waaye waxuñu seen bopp dara waxuñu ne bi dara ñoom nag la yàlla y farafànc wa aqaroona am na ñeneen wa xawmun aqaroona itarafoo ñoom connaître nañu bi zunubihim ci seen foob waaye def nañu lëf te bu ñu rek te bu ñu rek def bàkkaar mos nañoo def yiw ndax xalatoo jaxase nañu premièrement amalan jëf saali an ju rafet te mooy nangoo xeexi wa aqaru ñu teg ci jeneen jëf sëyi an ju ñaaw mooy trahir xeex bi jaxase nañu lu baax ak lu bon mos nañoo wax xeex leen ñu xeexi bii yoon ñu ne xeex leen ñu toog ah ñooñu laa ne inshallahu amaan na yàlla an yetooba mu jéggal alim ci ñoom ina laa borom bi xafoorun fompaakoon bàkkaar la réhi mun ji di yërëmaakoon kooku dem abi lubaabata moom ci ñu yeewoon seen bopp ca kaaba ga ca ci pays ja jumaa ji ca la def dux boobu yoon rek la ko def rafaatu ibnu abdi manzir la tudd kaana min ahli zuffa rabata nafsuhu moo yeewoon boppam yeew na boppam sintay asarata leylatin fukki fan ak ñaar mu yeew boppam fi silsilatin saqila ceen gu diis gu dëgër wa kaanat lahu ibna amoon na doom bu jigéen tuxilluhu li salaati wa qadaa il ajati wa qadaa il ajati boo xamee ne julli jot na moo daan jóge kër ga ñëw ewi ko mu julli mu yeewaat ko bu soxlaa boppam mu yewi ko mu defi ko mu yeewaat ko ne nañu suuratul anfaal ga ñu passé jiitaloon nañ fa ne awsaqa nafsahu maratan uxra bi sababi quraysh hatta nazalat waxoon nañ ne mosoon naa yow boppam ci beneen affaire budul bii bee ni yàlla wàccee ak njéggalam ñoom nag la sunu borom di wax keroog ba nga xamee ne njéggal gi ñëw na dafa noon ne yonent bi daf ko ne daf na yonent bi daal ko man yàlla baal na ma te am naa mbégte moomu dama bëgg a saraxe sama aleel yàlla ne ko nag bu mu joxe aleelam yépp nañ ci fa bas lëf wuxuus utal min amwaalihim ci seen alal yi sadaqatan lu tudd sarax sarax soosatu taxiruhum moo leen di laabal ci toog gi ñu toogoon te xeexuñu wutu sëcc ñi mu moo leen di sellalit biha ca bàkkaar ba ñu làmboo ci ñàkk gaa xeexi su noppee wazelli na nga ñaanal alim ci ñoom inna salawaataka sag ñaan yow Moustapha sakka nun rahmandele yërmandele lahum ñe leen soo noppee nga wutal leen sarax ñaanal leen sa ñaan de yow nabi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax ne sa ñaan yërmandele ju wéy ci jaam yi ndax ne nañu da'waatuka rahmatun lahum wa tumaniyatun wa hada fi ayati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sa ñaan seen njëriñ la loolu bi ko yàlla wax mooy dina bi dund wa amma ba'du wafatihi su xasee génn àddina fa duwaawu xalifa ñaani xalifa yi yaqumu maqama duwaay nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy taxaw palaasu ñaani nabi wa aydan ba tayit mën naa am sax ñaan gi def fi ndax al ahmaalu tuharridu alayhi sabaan wa masaa jëfi jaam yépp dañ koy montre ne bi suba ak ngoon guddik altine ak guddik ajjuma fa in raa xayran su fekkee li ñuy def baax xamidallah mu sant yàlla wa in raa xayra salik astaxfar lana su fekkee fekk na li ñu liggéey baaxul mu baalul mu kama warada fi lhadis ne bi noona ayaati xayrun lakum wa mamati xayrun lakum tuaridu alaya ahmalukum في السماء وفي المساء فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت سوء استغفرت لكم فدعا رسول الله فدعاء رسول الله حاصل في آياتي وبعد موتي ولا أبرس بمن ضل وساق عن الحق وخالف في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم yàlla noon na ko ñaari kóllëre ngi ma joxante yow sa gaayu li ñu tooñ tooñ tooñ duma leen alag feeg yaa ngi ci seen biir di dund boo fi jógee itam lu ñu tooñ tooñ duma leen alag feeg ñu ngi wax astaghfirullah ne bi ne am naa ñaari kóllëre ak yàlla yàlla ne feeg maa ngi fii lu ngeen def def foog du leen alag su ma fi jógee ngeen di wax astaghfirullah lu foot yi garaaw garaaw du leen alak kon bu ma demee bàyyi fi astaghfirullah wax na it ne sama dund gi yiw la pour yéen sama dee gi yiw la pour yéen saaba yi laaj ko ne ko su sa biir nekk gi nga nekk ci sunu biir bi yiw